jërë ngeen jëf sunu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delluwaat rek kenn ku nekk euh, swàccuwaay amaat naa li di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa nekk ak kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam ngir ñu ñu topp saa su nekk mën cee jëlee di njëriñ lu kawe seen jort comme ni ma koy defee saa su nekk ci gox yi fasantikoo doxantu tey ba Tambacounda seet si kilifa bi nga xam ne saa su nekk da ngeen koy laajte ndax su waxtaanee day waxtaan ci xam-xam bëgg naa ñu waxtaan ci ñaan ak paj waaye xew-xew jamono it ni ma koy defee saa su nekk bëgg naa ñu waxtaan ci mu di actualité am na lu mu gis ci nguur gi rawatina président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye waaye dinañ waxtaan ci làmb ji dox ci diggante Tapha ak kii di Balla Gaye su ngeen bëggee xam kiy daan waaye nag ni ma ko fekkee xat na waaye nag dinaa ko ñaan ñu waxtaan waaye li ma gën a yéem nag kër gi fees na dell ki nit rawatina ci taalibe mi am koo xam ne indil na ko xéewal lu mel ni daamar ba bëggoon naa mu indi ci seede waxtaan ci waaye comme que man damaa sob nag damay ñëw ñu waxtaan ci émission bi ni mu koy defee saa su nekk li ngeen ci xaar kilifa gi damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bismillah salaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatu bisimillahi alhamdulilahi rabbil alamina allah ñu ngi nit fi ngeen jóge ci soraay bu mu sori ngeen ñëw leen ko jaral ngam xam-xam amaana di def dara fekk li ngay def yow doo kam njëriñ bu ci nekk xëy na tey am na ay taalibe ñu ngi may wax jërëjëf Chérif Abdoul di ma sant di ma gërëm amaana bu ñu waroon sant yéen lañu ñu gën mun a sant nga te adduna shabab la yàlla dafa def shabab tey shabab bi moo nekk lan am na ay nit yu nekk fu sori am jaaxle am soxla xamuñ fu ñu koy jooytu xamuñ ku leen koy fayal amaana yàlla mu ngi def yéenay nekk shabab bi ñu mun a ñoo gis ñu mun a jublu ci ñu man soxla bi faju loolu sant loolu dama leen si ñaanal nga si yéen a koy def yéen noonu te ngeen di def yàlla moo tax ngeen di def kenn woowu leen di leen jox kaalis amaan seen télé bi lu baax ngeen ci bëgg dimbali askan bi moo ngeen ci bëgg moo war a ngeen di war sëriñ yi di génne sëriñ yi nit ñi xam leen ñu am soxla ñu amuñ fu ñuy jooytu ñu mun leen jooytu seen aju faju bépp sëriñ noon bu ci lekkalu lu setul mu def ci lu bon wala mu tooñ ci taalibi amaana du loolu ngeen ci jubloon loolu leen ci jubloon taalibe bi nu mu gisee sëriñ bi am ci moom yaakaar yéen tamit yaakaar boobu ngeen am ci sëriñ bi sëriñ boole leen gis am ngeen ci moom yaakaar am na kam-kam am ngeen ci moom yaakaar kii de boo leen ko woone mun na faj soxla jaami mun na faj soxla nit yu jaaxle ñi bu juble ci ñoom soxlam seen soxla dina faju loolu yaakaar boobu ngeen ci am taalibe yi kër yi ñuy woote yaakaar boobu lañ ci am kon dañuy ñaan yàlla bu yàlla yaakaar kenn tas jërëjëf euh, Chérif Abdoul Sow am na solo aja néew gudd na waaye am na solo lépp rek wéer ko ci li nga xam ne war nañ ko waxtaane aja damay ñëw ci seet dafa bëri te yaatu nag waaye yéen am na noo xam ne ci la ëpp noo xam ne képp ku seqi tànk ñëw ci yéen rek am na nu ngeen di jëflanteeg moom ba nga gis ci boppam ci seet seet moom mooy buntu xam-xam nga nit munoo ko liggéeyal seetuloo ko xëy nit boo demoon hôpital dañ lay defal consultation conseil kam la mu nekk si jàngoor ñu faj ko loolu kam-kam la li docteur bii di def mm. kam-kam la mm-hmm. ah yu yow kadi sëriñ nga boo jublante di jëfalante nit war nga kool bo nga kam kii ni fan la biddewam nekk fan la rawaxaanam nekk rawaxaanam bëccëg lañ ko mun a jot wala guddi lañ ko mun a jot wala njolloor lañ ko mun jot mm-hmm. kii ban buntu la jaar nit ay buntu buntu la am ban buntu la ñuy jaar faj aajo am aajo biini nii garab moo koy faj aajo bii nii ban tuur yàlla moo koy faj aajo bii nii nan nag nan mën a def ñu faj aajo bi kon nekk dafa am nu ñuy def ñu faj aajam kon noonu loolu chet moo koy xamal nit ñu jibalante ak taalibe ude dama lay seetal dama lay koolal kool sa bitteew kam noon ba li nga kam te yow yaakaaroo ko ci woon ngati dinaa kam bo kam fi nga takaw dinaa kam sa tuur dinaa kam sa tuuri waajur dinaa kam sa soxla dinaa la wax ba wax la yëre yi nga soxla mhm. lépp li nga kam doon amaana loolu moo nekkoon sa soxla li nga doon xaj di nopp dinaa la maa ngi jublu ci yow bu ma xoolee xam ne mun naa liggéeyal liggéeyal su ma la munul liggéeyal kadi dinaa la yebal ci sëriñ bi nga xam te ne foofu la soog la bii di fajo mu wax la demal foofu. acca jërëjëf acca kon ñu yaatal jàll ci beneen ponk damay ñëw ci nopp nopp nag suñ ko waxee seen xel dina jëm ci yéen ndaxam ne loo xam ne suñu borom may na leen ko ci wàllum nopp dellusil ma ci ni ngay defee nopp. mboy boole boole ñaari nit nopp noonu nekkul jigante jigante nag góor. noob ci kullun bani aadama nit képp na bugul njëriñ bu am digganteem ak nit njëriñ bi mu dàkk noob ci diggante doomu aadama bu nekk la amaana noonu ci diggante jëkkër ak jabar ci lañ ko gën soxla buñ lay noobal bu ñu defee noob bi sa diggante ak nit ki yow sa bopp bis buñ la noobalee boo tëddee guddi ko tëdd guddi di gis luñ la noobal ci nit ki loolu am na nit biñ la noobal ki moom ngay gis ci guddi bi nit kuñ la noobal ki moom ngay gis ci guddi bi dina la feeñ ci guddi bi boo tëdd guddi dinga nga gis kuñ la noobal ki moom dina feeñ ci gént di nga xam te ma la liggéeyal ci moom di jàpp na kadi ñetti fan la su ma ko defee diggante jëkkër ak jabar su ma noobalee sa soxna boo gënoon àdduna du am beneen borom kër du mun a séy ak keneen dootul bugg kenn ci àddina su ma la sa jëkkër boo gënoon àdduna boo ko njëkkee génn àddina du séy du takk beneen jabar ngati dootul mun a nekk ak beneen doomu aadama ku dul yow kadi du ay fan yu yàgg ñetti fan la mu liggéeyal la moo waral bugguma ci caakaan dama ci soxla nit yu fas yéene nekk mhm. ci sey bu keroog ñuy génn àddina bugguma ci war mhm. nga ci boo waree nit ki mun na dof su ma la noobale nit nga bàyyi ko mhm. mun tof dootul mun a nekk ci jàmm dootul mun a keneen dootul mun a nekk jàmm moo waral bugguma ci caakaan su ma lay dama lay boomu boomu dégg sa boo ci defee caakan wala nga war ci nit ki tooñoo ko man nga tooñ nga ci man maa ko def ah. jërëjëf ca ñu dox ba léegi yaatal jàll ci beneen ponk dama ñëw ci cangat ubbeeku bu saf sap bi nga xam ne yaa ngi koy def càngat boobu nag xam naa ku mu compal ba defal la say sunguf boole ah ñàkk ko am daal wóor ñëwal ma ci ubbeeku bu saf sàpp boobu nga xam ne yaa ngi koy def. bi ubbeeku loolu moo war a sëriñ lu mu war a gën a mun a gestu lu mu gën a war a mun a xam mooy ubbeeku soo di jëflante ak ay taalibi yow sëriñ bi nga tàdd ci li ngay liggéey nga am ci da ngay jàng ubbi nit nga taalibi diggante taalibi ak sëriñ taalib bi ci lu muy am ah. ci la sëriñ bi war a am ci taalib bi lu muy am ah, ci la sëriñ bi war a am diggante taalib ak sëriñ mu ngi mel ni nga ji sa garab nga ji dugub dugub boo koy ji danga sanditan ci suuf waaye njëriñ bi bu màggee ngay xam bu dugub bi màggee mhm. ci ngay xam njëriñ bi ah, moo nekk diggante taalib ak sëriñ mhm. da ngay ut fu dara nga def fa nga wut taalibe ki mënulul boppam kuy jóg ak daal nga champo ko di ko jox ay mu sangu mu dem bu kilifa di am alal di indi alal bi di yëkkati di ko bokk ak mooy nekk ki nga gis ni mu indi fi oto bi tey mhm. mhm. bu muy ñëw ci man fekk mu mbuur bu ñuy wax sali mhm. su benn taalibe moom fa yóbboon mu ñëw dima ma fekk foofu noonu moom ngi doon jaay kafe kafe tuub kafe tuuba jaay mu ñëw ci man saa yu nekk day ñëw ci man bu ñëwee mu defaral ma kafe ma ne ko man de ataay moo ma génnal mu toog bàyyi jaayam kafe bi toog di ma defal ataaya ma nekk fa saa yu mu ñëw di def bu yore téeméer mu ma bu yore ñaar fukk mu jox mu naan ma defaral ma sëriñ bi mu sangat waaye aw ma doole waaye bu naa dafa sangat saa yu nekk ma ne ko teel sa tan yow kay demal bu may dem dinaal defaral sangat mu nekk noonu bu mot weer bu ma war a ñibbi mhm. ma woo ma ne ko tey lay dem amaana tey la yàlla dogal mhm. na am lu ma yëkkati ma teg ko sa loxo ma jox ko sangat bi ma ne ko bu demee bu dëkk bi yëpp tëdd mhm. sangoo ko boo nga dem nga bu ñëpp tëdd mu sangoo garab bi mu nelaw mu yeew mu dem ci teefes sali bi ci booru géej bi muy dox moom moo ko wax cànk wax na ko seen kanam muy dox daje tuubaab bu jigéen tuubaab bi gis ko ne ko te ko bugg mu bu ne ma Cherif Abdoul man de gis naa fi tuubaab bu jigéen nee na daf maa bugg bi noonu loo ci ma ne ko sa bu jigéen bi nga gis bi moom moo nekk sa buntu wërsëg ñàkk woon na la ginnaaw sa buntu wërsëg moo nekk noonu mu sëy ak tuubaab bi tuubaab bi tuub jël ko fii yóbbu fu ñuy wax mu nekk foofu ba tey da doon jënde foofu ay oto di ko indi fii di ko am na lu nekk am na ay kër Ndakaar sali boobu noonu jënd na fa kër yóbbu na foofu ma defal ko fa ay ñaan bâtiment bi nga gis fii moom moo ko tabax oto bii nii moo def ñetteelu oto bu mu indi fii mooy moo ko tey nga ci tegaat seen bët li mu soxla ko laajee da koy def amaana loolu mooy sëriñ da nga fu dara nekkul nga def fa dara boo sampee sa taalibi kooku loolu loo soxla boo ko laajee la koy defal nekkul noonu ku dem bu am alalam koo kay da nga koy ñaanal yàlla bu ko cat topp alalam ndax na yokku waaye lu gën nga uut ku munul dara nga def ci moom dara loolu mu gën a ndaka ndam sëriñ jërëjëf jërëjëf acca waaye dañu ñëw ci tukki te duñ ne tukkiit it seeni xel dina jëm ci wàllum papier rawatina ñi nga xam ne saa su nekk dañ koy sàkku muy xaw a tàgg témbe moodu moodu faat faat yi dañ fay am jafe-jafe ñëw fii sax problème lay doon ñëwal ma ci wàllum papier loolu kaayit nekkul papier tam kaayit bu munta nekk kër béréb liggéeykaay mm. tukki réew bi nga nekk bëgg fa am kayit mhm. juróom-ñeenti fan loolu juróom-ñeenti fan la dama la koy liggéeyal ci juróom-ñeenti fan ku la war a jox kayit bi di nga déggante dina la jox sa kayit amaan lu leer laa ci wax nit ñi ku dama laa liggéeyal bu nga gis nga doog a fay mhm. kooku wax lu luy dugg sa nopp kadi noonu laa koy def ñëwal ma ci Bayre waaye Bayre liggéey nag moo tax may wax Bayre liggéey Bayre njaay Bayre boo xam ne dinga nga am mbooloo Bayre moom dafa bari te wuute. ay nit ñàkk am Bayre baaxul ci doomu adam Bayre noonu nekkul ñu lay coow. Mhm. xam nga nit ñi dañoo jàpp lan mooy Bayre ñëpp di la coow di la tudd diw diw diw diw mhm. loolu du Bayre mhm. loolu du Bayre. ati loolu nit amaana def na lu bon nit ñi ràññee loolu coow ko bayre mhm. mooy ku la gis da lay sopp da lay yéene nit ñëpp mun nañ la bañ a xam as nit yu néew xam la ñooñu ñu amal la njëriñ bi nga xamante ne adduna bi yëpp buñ la xamoon duñ la amal njëriñ boobu ku am bayre ku la gis mhm. kilifa nit bu am njëriñ ci àddina mhm. bu la gisee day bugg jàkka soog yow dina la yéenee alalam di nga ñëw ci béréb nga fekk fa ay nit yu nga xam te ne yàgg nañ fa mhm. nit ki ñoom la njëkk a xam ñoom la njëkk a jàpp kolloore nga ñëw foofu amara nga mu defal la li nga xam te ñooñu musu leen ko defal di nga gis nit nga nekk karitu président nga ñëw nga fekk foofu président bi mu yor fa ay karit yu nga xam te ne yàgg nag ñoom bu muy balaa muy nekk président la leen kam yow nga sekk moom lu mu sekkul ak ñooñu mu defal la li nga xamante ne defulu ko ñooñu gis nga ku jàngul munul xay wax faraas bu leer mhm. waaye président bu mu bëgg xam ci àddina bi da koy kam da ko koy yombalal mhm. ku nekk dina ko gis di ko yéene alalam di ko toog mhm. lu ñuy wax ay marché ci état bi gis nga ay nit yu jàngul ñu entreprise yu baax waaye ñu ngi leen di jox ay marché ay milliards bàyyi rek ak ubbeegu mooy ànd sa yaram mu neex ku la gis dalay yéene di la loolu mooy nit mooy bàyyi nga ci coow bu yàggee cat mooy dugg ci yow cat bu duggee day fàtt wërsëg fàtt wergu gu yaram yaram duggal gàllankoor loolu xëjul ci doomu aadama yàlla nañ ci yàlla musal jërëjëf Serif euh, Abdoul Sow jërëjëf ci xamxam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo aje ñu ci beneen ponk dama ñëw ci koo xam ne dafa bëgg am doom mu doon jafe-jafe ci moom. bëgg am doom nit dem na hôpital lu ma soxla mhm. ku dem hôpital ñu naan ko munoo am doom nga dem wër ci sëriñ yëpp munatoo am doom. nga dem boo amatoo yaakaar di nga am doom mhm. juróom-ñeenti fan bu ma jox dara teel sa bu ma la seetalee moo xool ma xam ne ne gis naa ne mun naa liggéeyal mhm. juróom-ñeenti fan di nga nekk ci diggant nga dem hôpital ñu kool la bu ñu koolee bu ñu xam ne yaa ngi ci diggante ma nee la kaajal nga ñëw nga fay boo demee bu uuf sa doom mhm. lu des lii nga ñëw nga mottali kam kam fii fi ma fekk mhm. suma maam moo ko sanc mhm. mu ngi fii di dund am na téeméeri at ak ñetti at mhm. ginnaaw yàlla ak yonanti bi moom moo nekk suñu lépp moo nekk suñu kilifa moo nekk suñu yaakaar moo nekk suñu lépp lépp lu ñuy jooytu ci àddina moom lañ koy jooytu aaju bu ñu soxla moo koy faj waliw yàlla la siyaar bi mu génn mag fii moom lañ koy defal pol book laa ci bi kam na ko mu ngi fi dañu ko doon na kadi jàngi ko man jàng naa fu ñuy wax boowe Gine jàng naa koore ñiiwa dem naa Masina jànge foofu dem naa fu ñuy wax Niger ma jàngee fa dama jànga kam-kam juddu ji kam-kam noon nekkul danga koy donno tan déedéet danga koy jàng li ma doon fii ci suma papa jàngee ko ci suma maam gati maam kali sama maam kalifa laa ci yëpp xam na ko day taxaw ak garab mu wax garab bi fu mu toog yi day woo nag yi ñu ñëw ba ci biir kër gi soxla bu mu bugg te ko ci def ñëpp ko jóg cër waaye amaana bàyyi naa fi loolu yëpp ma dem ma jànge feneen loolu moo nekk xam-xam ne da ngay kam jaaram jërëjëf aca fa jeexale nag bokk na ci xew-xew jamono mu di actualité gis nga politique bi ak ni muy doxe lan nga ci gis loo mën a wax ci nguur gi jamono ji ak ni ñuy doxale aha ci wàllum uh, nguur bi politique bi war war mu ngi ci biir amaana tey ci kan diggante Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane nag kilifa bi nga xam ne ci Macky Sall la bokkoon amee na foofu alal bu bari amee nafa alal bu bari gis naa ñu jàpp nangu alalam ba mu jeekal bu mooy ci kaso bi dina fa yàgg. waaye ci fan yu new di nga ci teg sa am coow kilifa bari na alal waaye alal bi léegi dina sulleeku dinañu kam. dinañ ko jàpp dinañ rocce alal bu set cat topp na ko alal bi dinañ ko nangu dina jeexal alal bi loolu bu jàllee du guddaat fan ci kanam day génnaa dina <laughs> loolu jàllee tuuti du guddaat fan maa toog fii wax la ko te yàggutul loolu bu jàllee tuuti du guddaat fan kilifa bu mag la am na alal ci nguur Macky Sall bi alal bu bari dinañ ko jàpp ci fan yu néew di nga dégg jàpp nañ ko buñ ko jàppee dinañ nangu alal bi dinañ ko dugal kaso bu fa génnee bu deewul ci biir kaso bi bu génnee du gudd fan. ñëwal ma ci làmb ji dox ci diggante Tapha Tine Balla Gaye laata ñuy jeexal làmb jooj loo ci gis. ne woon beneen télé bi làmb ca bi woo nañ ma ma nee leen seen dina daan Sa Thiès Balla Gaye lamba bii nii moom noonu moo ëpp ay sotkat moo ëpp ñu koy sotal waaye moom ak siita gisuma leen moom ak siita bu ma sañoon lamba yii du am ci ñoom ñoom siita moom diggante ak Modou Lo baaxul siita bu ma sañoon du berek Modou Lo génnul ci moom Balla Gaye bu ma sañoon du berek Tapha Tine génnul ci moom gisuma leen foofu baaxul ci ñoom lamb bi lamb bi bu amee génnul ci ñoom Tapha Tine ci Balla Gaye Siteu ak Modou Lo génnul ci Siteu ko ñaari lamb yooyu ci Balla tele yi noonu télé lay wax su amul ñëpp dinañ kam man maa ko waxoon fii dina fi tes téeméeri junni at du tey amul kat dinañu génne vidéo yi ñu kamal ne nit ñi li ma amul du ma waxee suma bakkan ah alhamdulilahi rabbil alamin chanta naa leen wax naa bismillah yàlla na ci yoonu jàmm ah, jaaraama jërëjëf jërë